ميكاشف الألباز عن فيد القتم أبي الأعباز وصاحب الفيدة التجانية نيوانتي الفصل الثاني من ثبيت النار لوي وين قمني موي جرومي لسبيتر تي سبيتر وني تي تيري دي كاشف الالباس بين قمنا موي جانغلي غو قم قم ييغا قمني noo ngi ko wéet ci alquraan ak sunna wax na foo mu am cëslaay du wane doomi aadama dafay neex ak làmmiñ rek di wax wante wax joo wax te amal ko cëslaay ñu nangu amuluñ ko cëslaay ñu bàyyi ndaxte abdullahi ibnu mubaarak daan na wax ne al isnaadu min ad diin lawla al isnaadu la qaala man shaa ma shaa آه، مولانا الشحاج ابراهيم نينا قلت احنا مو انا لومي واخ لومي واخ موي دا فاي جيمال لاي فصل وي موي سابيتر وي مو واخني غو قمقمي نيونك دغرالي وير كو تي القران اك سنه من قلت واحنا من مولانا الشيخ قال واخنا الله يلا تعالى مكيف مو انا لو يلا واخ من بعد ما سورة النحل آية 89 بورني وخني ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء بورني وخني ونزلنا وكينا نيون يلا عليك تيو يو محمد صلى الله عليه وسلم مو أنا اللي يو من الكتاب القرآن آه، مو أنا كوز يتح نوكي القرآن من التبيان مرمومي أجي ليرا لكل شيء نيل لب لف أقام آه، غنكون صوفيزمو lu ñuy wax ne seen wax yi daal mu ngi tabaxu ci alquran ak sunna seen wax du neen nee na moo leen cheikh mu ngi indi aaya alquran bu nekk suratu nahl aaya 89 buur ne wàccee nañu alquran ci yow yow muhammad cause bi tax ñu wàccee alquran mu nekk di aji leeral moom alquran ñeel lépp lëf nekk la ko def li kulli shay لولي وخني قلت وحنا من مولانا الشيخ قال وانا الله يلا تعالى مكيم ونزلنا واتينا نين يلا عليك يو يا محمد الكتاب القرآن التبيان بيرم أجلير لكل شيء نيل لبلف كوك سورة النحل آية 89 مولانا الشيخ موي وخ وانت دي اندي اي آية دي ليرال فصل بي مي سابيتر wi nga xam ne mooy ñaareelu chapitre di juróomeelu chapitre ci chapitre téere wi muy fasal téere wi mi ne qaala wax na taala taala mu koy mi ne maa farat naa fil kitaab min shay maa farat naa bayyi wuñ fil kitaab yi ci téere wi di alquran min shayin ci dara amul lëf loo xam ne bàyyi nañ ko ci alquran wax nañ lépp lépp ci biir alquran wallay buur di wax ni wa qaala wax na taala mu koy mi ما فرطنا بيون في الكتاب كي القرآن من شيء كي لب لف لب لو قم رد وحنين كي القرآن مولين الشيخ موي موي وقت بليك وانت دي اندي اي اي رد دي دي دي دي سكون دي كي عبد الله ابن مبارك لم وخون الاسناد من الدين وانت بيلقل كي وقت تي اندي اي دي وقت موما غنا خم تي مولا غنا خم يومي جانغ درس ويلي نعتي مو وخني الكتاب والسنه لا ادري من هو اعلم مني بهما من من دي نغنا وخم جي كون نات موغي وخني بورغي وخني وقال وخني تعلم كوم ويخلق ما لا تعلمون بورغي وخني ويخلق دنا مو بند ما لو خمني لا تعلمون قمولين كو كون نات bu fekkee ne doomi aadama gis na lu mu xamut na nangu ne yàlla waxoon na ne dana mu bind lu ngeen xamul kon mbay leen xel laay yooyu la moo tax ay aay yoo xam ne nekk na ci biir ay ay mbir yoo xam ne jaas sax ñu koy tudd wante ay mbóot yoo xam ne sax jaas ñuy feeñal mbóot yooyu la واتمنى وقالوا أن تعلم كومني ويغلق دنا مبند ما لو قمني لا تعلمون قملنكو معلش يعني وانظر قول إلى جواب سيدنا علي كرم الله وجهه من قول الريبونس يقم من سيدنا سنغزنا علي علي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بفكينة للخبر لا مويني دافاي دا فاي خامل ني يالا علي ابن ابي طالب بو فكين لي دعاء لا نيان آه، علي يان يالا تيرال تيل مايك علي ابن ابي طالب مي خامل موي 4 خليفه ينتبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى قول الى جواب جم تي ريبونس جم تي سيدنا سانغ علي علي كرم الله وجهه آه، تونتو moo ana kum ko tontu ak question woowu ba mu indi réponse mooy Abu Juhayfa boo demee ci Wakiya xibaar nañ Wakiya mu jëlee ci Sufyaan Sufyaan jëlee ci Mutrif Mutrif jëlee ci Shaabi mu jëlee ci Abi Juhayfa Abi Juhayfa mooy nettal nee na lañ na imaamu Ali ndax dafa nekk ci yéen ak téere woo ne xanaa yenent bi yéen rek la ko jagleel ndax dafa nekk ci yéen ab téere mu ne ko a ah, déedéet lu mooy ah, téere yàlla wi walla dégg-dégg woo ne jox na ko ab waay woo xam ne jullit la wax ji ma wax boo demee ci al Buxaari yi génnee na ko ci kitaabul ilm baabu kitaabatul ilm ci volume عديت اللي ما يخصم ويني إيه؟ حد زوي ولا اللي ما ينتلني دا المويني حد لو وقمني محمد بن سلام نينا أخبرنا وكيع بون وقت نينا أخبرنا وكيع عن سفيان عن مترف عن شعبي عن أبي جحيف قال قلت لعلي هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فمن أعطي رجل مسلم إلى آخره ما tax ma doon قال لي إلى جواب جمتي تنتوي قبل تنتنك سيدنا سنغزنا علي علي كرم الله وجه لما بقى قمين سألوا لنك أبو جحيفة أبو جحيفة هل عندكم دحنك نفذين كتاب أبتير وقمنا قصكم جغللنا لنك بيجتر ورسول الله نو يلب صلى الله عليه وسلم آه ريبوز بدا المويني إمام علي نكو قال الله ديرت أمود بين تير وقمني ينتبه دفن يكو جغلل قناكو إمام علي دان وخ دان ينكو قمني من إلا على كتاب الله تيري يلو إيه، تعالى مكيم بورني مولا شادي إن أيوني سبحان الله أسرى بعبده سبحان تدن مسلك برم بي الذي من يقمني أسرى رنيانين بعبده تجمعه كوكو سورة الإسراء أي مولا شاني انظر قول صحيح البخاري من قول صحيح البخاري بوكو قولي دان فك حديث في مالي وخ مين حديث وقمني ابو هرير مملي ان آه، حديثم مولاي دلو صحيح البخاري في صحيح كتاب العلم باب كتاب آه، كتابة العلم دان فك حديث في مالي جنگ نين وكان ابو هريرة رضي الله عنه يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عين أما أحدهما فبثثته لكم وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا البلعوم xadis bii la lay wax ni boo ci imaamu Buxaari génne na ko ci saxiixam woowule mi ne wakkaana nekkoon na Abu Hurayrata Abu Abu Hurayra mooy bàyyi Muslim loolu ko ni yële ci moom wante mu ngi tuddoon na Abdu Shamsin muy jaamu jant xam nga ne turóobu jagut ba mu tuubee yenent bi tuddee ko abdurahman ibn saxr addawsi mu ngi bokkoon ci ahlu suffa moom abu hurayra mooy wax ni radiallahu anhu yaquul mu ngi wax ne xafistu wëttoo naa xafistu mokkale naa xafistu rootee naa mi rasulillahi ci yenent bi sallallahu alayhi wa ayn ñaari ndabu xam-xam mi ne ama ahaduhuma ndaam benn ci ndab woowule fa baxastuhu yulli naa ko lakkum ñeel leen moo tax ngay dégg ñaan rawaahu abul buxaari rawaahu abu hurayra abu hurayra solo na nangam solo na nangam mi ne benn ndabu xam-xam woowul e, so e, yulli naa ko ñeel leen wa amal axaru ndaam weneen ndab wa des na tamarootee ko ci yenentu mokkale ko ci moom falaw baxastuhu bu ma ko yulli woon xataa ñu dog mi ni ci man xasal baluum sama e, put gile ah, ana ban xam-xam lay ragal wax ne su ko waxoon ñu dagg euh, puutam gile kon nag de gaa ji wax ji wax rek te xamoo li muy wax nga bugg a raddu waxam ji walla nga bugg koy dàq mën a defal faire attention kon nag ñooñ ñooñu tasawuf daal seen xam-xam yi génn alquran génn sunna moo tamit nag moo leen cheikh ne unzur xoolal sahih yi wa kaana nekk na abu hurayra abu hurayra radiallahu an radi na allah yàlla an ci moom yaquul mu ngi wax xafisu wattu naa xafisu mokkale naa mi rasulillahi tukkee ko ci ndaw ak yàlla wi sallallahu alayhi wi ayin ñaari mbuusi xam-xam wi ayin ñaari ndabu xam-xam mina amma ahaduma ndaam benn ci ñaari ndab yooyu le fa bazastuhu yulli naa benn wala kum ñeel leen moom ngay dégg abu hurayra nangam wa amal axar ndaam weneen wa falaw basastu bu ma ko yulli woon qataa dagg na mi ni ci man asal bul uum وفي تسجيل الشيخ سيد مختار رضي الله عنه من أبو دمتين بيتشوك آه، الشيخ سيد مختار بمعنى آه، بنيم بيتشي مو يوكو ودمتي تسجيل الشيخ سيد مختار رضي الله عنه دا غي فك مي اندي واخ جلي موم لاي مالان شاغدي اندي واخ جيجي نيك جي تزيل الشيخ سيد مختار رضي الله نينا وكان نيكون يعني انا كان لي وخنا نيكون من ابا هريره نيكون يقول دي وخني قال بين روايه لي اندي تي إيه، تزيل الشيخ سيد مختار ابو هريره دا وخني اقصو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرا بي علم يعني أما أحدهما فقد بثثته وأما الآخر فوالله لو قلت منه كلمة واحدة لقطعتم هذا البلعوم كوكبو دمكي إمام البخاري جنين صحيام في كتاب العلم باو حفظ العلم إيه سيد المختار موي إن حديث وين قمني بنين ريال وقمني أو حرير موكو صلو نينا وكان نكون يعني أبا حرير نكون يقول دي وخني axastu jëlee na an rasulillahi tukkee ko ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jira bayi ilmin ñaari gafakaay xam-xam téeri wax yu njëkk dafa waxoon ne waayin wante fii daf ne jira bayi ilmin ñaari gafakaay xam-xam ama ahaduhuma ndaam benn ci ñaari gafaka yooyu faqad basastu yulli naa ko wa amal axar ndaam yeneen wa fa wallahi mu def mu def xasam nag maa ngi gën ci yàlla ne law qultu mu waxoon minhu ci ndab eh, ci gafaka wu wu des kalimatan baat waahidan bay benn konoon la qataatum da ngeen dagg yéen saabi xasal sama puut gile malgré waxu ko mi ne bu fekkoon ne wax naa ci beneen gafaka gi mi nga xam ne jëlee naa ko ci yenentu bi bu ma ci waxoon benn kalima yen saxaaba yi da ngeen dog sama put gi qabla an atama njëkk may pere ci kalima woowule a ko net bayil xel ñooñ soufisme maanaam sen wax ji génn ci alquran sunna wa fi wa fi misla zalik aji nek la ci lu mel noonu le yaqul mun koy wax e ali ibn abi talib radiyallahu lu mel ni imam ali mun koy wax mo ana lu imam ali wax lu mel noonu يا رب جوهر العلم لو أبرع به أمنين رواية فعلا لو أبوع به لقيل لي أنت ممن يعبد وثنا ولست حل رجال مسلمون دمي لولا تربين وأنت يفك يق ولست حل رجال مسلمين الدمي يرون أقبع ما يأتون حسنا كوكي ما معلمي يا يقلني rubba jawhari ilmin bari na ooru xam-xam bari na ooru xam-xam xam-xam yoo xam ne ay woor lañ law abraxu bu ma ko feeñaloon ba ne law ab wax way wa yàqut ah dara yàqut bii ci moom la qila waxee lii ñeel ma ante yow mi man yaa ngi bokk ci ñi nga xam ne yaa abudu nañu jaam alwasana xërëb imaam ali mi ne yëgal ne bari na xam-xam yoo xam ne ay wurus lañ bu ma ko feeñuloon ret waxeef ñeel ma man imaam ali ne yow yaa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañuy jaam xërëm di ko nëbbu wala staxla ñu sàkkoo daganal rijaal muslimin góori julit ñi dami sama deret ñi naa ah, imaam ali yéeféer la rey leen ko yaraw ñuy gis aqbaa euh, aqbaa lu ñaaw maa loo xam ne yaatunawu dikkee na ko xasana ñi ah, li ñu def nii kat lu rafet la fekk tamit lu ñaaw la lu doy waar la am maana dañu xamul li may wax ولن شعر لأن الحقائق الربانية نكا دق دق يكوجك يلا كوكو الحقائق جمع حقيقة مي حقيقة النبوة أك حقيقة ولاية أك خلافة حقيقة وجه تخورت قم قم يفنك دفا ديس جنة ديس جمو ديس نت motax la yastatiru attanut hamla abaiha yanuko disa yemuwa ngana ka ba fo a kenn attanuko mine illa lusimu def exception man ki nga xam ne ahlahu xeyaloo na ko allahu yàlla li zalika ñeel lool wante yama ci wa shara mu leeral sadrahu dënnam li maa ñeel li nga xam ne hunalika moo nekk foofu la ci ay xaqayqi rabbani ay xam-xam yi ci nekk nee na alxaqaayiq rabbaani daal duwul ne nit yi attan na mën a yenu xam-xam yi fa nekk lu ki nga xam ne yàlla xeyaloo na ko xam-xam yooyu mu yenu ko ndaxte attanut yenu ko lu mooy ak prophète wu tëdd walla ak yenentu wala ak waliw wa xam ne wu am xikma la wala wu xariñ loolay wax ne li anna al xaqaayiqa naka xaqaayiqa arbani yi ko jeg yàlla kooku laa yastati attanu ko xamla aba iya bu ñu aba mooy ak lu diis gàtt la xamla aba iya yenu ko diisaayam ba illaa lu du man ki nga xam ne alahu xeeloo na ko allahu yàlla li zaalika ñëllul wante du ci yem wa shara mu leeral sadrawu dënnam li maa ñeel li nga xam ne hunaalika nekk na foofu la ci ay xam-xam is ndax laa yaqdiru attanut ala xamliya ci yenu yooyu la xaqaayiq rabbaniya illaa ludut nabiyun yenentu woo xam ne prophète woo xam ne karimun wu tëdd la aw wala waliyun wali woo xam ne xakim wu xereñ la qaalu ana jaafaru sadiq moo ana kan mooy jaafaru sadiq mën a bàyyi xel mooy ki yenentu waxoon ne ko jaafar yaa ma nuru من جعفر الصادق مي لما قرب الحبيب من الحبيب غاية القرب نالته غاية الهيبة فلاطفه الحق غاية الملاطفة إذ يقول فأوحى إلى عبده ما أوحى كقصرة النجم أي الديس جعفر الصادق من التل من لما بقى قمين قرب جيجن الحبيب صب من الحبيب تكيكو جي صبب موا غاية الغرب doyoog jege mi ne naalatu may na ko gaayata xayba doyoog ak haybatu ak wegel jaafaru saali mi ne soppe ba mu dajee jege soppeem wa dayoo ak jegeret mi ne ci la ko soppeem wa mayee doyoog ak hayba muy ak wegel falaatafu mu ñëwent mu ñëwe ñëwe anteeg moom alxaqu yàlla gaayatal mulaatafa dayoog ñëwentante ci moom وتمنى فلاطف مو نيو انتك موم الحق يلا غايت الملاطف ديك نيو نيو نيو تانتي للا قد مو إذن يقول من يوخ يلا سبحانه وتعالى سورة النجم آية ديز فأوحى وحينا إلى عبده جم تجامم ما لنا قمنا أوحى وحينا كوكو آه، يلا دي وحينا جم تجامم لم كوحي ana moo lam ko wax te boo demee ci Moussa lam dëlante wu moom ci yàlla ca tuuru euh, Sina ah, buur nettali na ko fa wante yonent bi alayhi salaatu wasalaam buur de dafa wax ni fa awxaa ilaa abdihi ma awxaa kooku suratu najm aya dix maanaa loolu lay firi ne ay fa kaana nekk na maa kaana la nekk wajara daw na ما جرى على الدونة وقال وانا الحبيب الصبي لحبيب جمج الصبيم ما علينا قمنا يقولوا وانا قال الحبيب الصبي للحبيب جمج الصبيم فخفي منبع سر بروا إذ نح عظم الأمر غير مجايك امبر وغلي معنا دال نكنا لنك دونة لنقمنا الدونة صبي بدال وحنا نيل صبيم و إيه، لا نقم نوح نكو صبي بجمج صبي و معنا دال إلى عبدي ما أوا لورلا te terewu na mbóot maa ngi fa des di nëbbatu ngir màggaay ak mbir wowule moom la ay lim ci na mu daal fa kaane nekk na maa la xam ne kaane nekk na wajara daw na maa jara la daw na waqaala wax na alxabibu soppe bi lil xabibi jëm ci soppeem maa la nga xam ne yaqulu mu ngi koy wax alxabibu soppe lil xabibi jëm ci soppeem eh, fasa saba soosu xaf yee nëbbatu asiru mbër ko إذا عظم الأمر عظم مجرى الأمر مروه ولذلك للمعطى لم يطلع لم يطلع يرلور على كيموم أحد كن يلو المعطى يلا يرلور كن موت مي قمنا وحينكو جمتي جامم لم كو وحي te يعلم lam ما xamut على awxaa إلا الذي لرد ko قمنا lazi ما وحيو ki nga xam ne awxaa moo من فاب حمو مل ملكو ولذلك لعظم غير مجم لأن إبحام نك نك لمل لا يقعد تبي إلا لزل لتعظم جمتي أك لمج ففر لي إبهام دي أم فهو مبهم بمم أجل لمل لا لا يطلع دفير على عليه تل مرمو أحد كن بكن دكير لولي وعني فأبهم ململكو لعظمي غير مجايم لأن الإبهام تحت آه، اللمل لا يقعد تبي إلا لجد لتعظيم جمتي مبير مقامن مو فهم مبعبز مو موي موي لمل آه، لا يطلع ديفر كير عليه تمبر أحد كن mina bal bàyyi sa itaabal def na jaamu mbir woowu bil imaani ci ngëm bii ci moom ah danga koy jaamoo ak ngëm rek nañ ko waxee noonu koy gëmee jaamoo ko ya yàlla daal nee na wax yi na wax yi na jëm ci jaamam lam ko waxee moo tamit na bal bàyyi daal itaabal dina mu jaamu ak ngëm loolu bil imaan ci ngëm bii ci moom. وقيل وخفنا ام نيو صح بل بايل علمو قملنا عن النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم لقواس ديم تي نيو خمنا نيو ني امتي تي خيتام نا نيغا خمنا اول وراثتي نيو نيو ني دون دونم موي دون تي دان وخني بروفيت دي دون تي ديرم وانتي لي ني دوني موي خم mi ne am na ñu wax ne sax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal na jëm ci ñi nga xam ne ñooy jégleelu xeetam ñi nga xam ne ahlu wirasati ñooy ñoo ñekk uh, wuutu ko foofu loolu al ilmu laduni mooy xam-xamu laduni moom la Yonent bi xam ne xam-xam yi nga xam ne laa wahu moom xam-xam ilmu laduni allazi mooy xam-xam yi nga xam ne laa yuxaatu deful ko peeg bi kon xixi ci dëgg-dëgg uh, xam-xam woowule تي ولا يطيق اعتن حمله إينه قمقمه إلا آله لذلك يلو من أقطاب هذه الأمة الشريفة لذلك أقطاب ولقيت وتد ñoo ñi rek ñooy ñi nga xam ne daal àtte nañ yenu al ilmu alladani ah moom lay wax ne waqila waxif na bal bayl allamu xamal na ko annabi yeneen tubi sallallahu alayhi wa sallam li xawaasin jëm ci ñi nga xam ne ñooy ñooñ ak jégleelam ci xeetam لقواس أمتي جم تنيونيك جغلي لم جقيتم نيوني جغلي لم جقيتم نيوني من أهل وراثة نيوني دون دون دون نفهم فهم قم قم ودال العلم لدني وقم قم لدني وهم قم قم لدني الذي ما يقم قم يقم لا يحاط دفك بيك بكون هي تدق دق آه، قم قم وول تي ولا يطيقوا اتنت حملو ينو قمقمو إلا آلو لدود نيقيلو من أقطاب مدف من بيان بيان من أقطاب هذه الأمة الشريفة لدود أقطاب بلا قيد وتد نيونيرد نيوني من ينو آه، علم اللدني أولي إيوه مولان شاني وذكرت لنا الفار الراسي فار الراسي نيو قمت موي ني جيجي وتي قمقم رد وانتي الفار الراسي كوكو علم من العلماء نينا قالوا انا سميت الفور آه، الفاروق عزميوخ نينا الدقنا تي ابو القاسم آه، سليمان الانصاري يقول لما وصل محمد صلى الله عليه وسلم إلى درجة العالية والمراتب الرفيعة في المعارج أوحى الله تعالى إليه يا محمد تم شرفك قال يا ربي بنسبتي إليك بالعبودية قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده آه، بورد وحلل إيه رازي ما يوخ لأن ديكنا جي أبو القاسم مو أنا كان مي أبو القاسم مي سليمان الأنصاري إيه مملدن كنيا أبو القاسم لأن ديكنا جي سليمان الأنصاري يقول ميوخ لما بقى قمين وصل يجنا محمد محمد صلى الله عليه وسلم إلى درجة العالية جمتي درجة وكبه والمراتب الرفيعة جمتي أي مرتبة يقمن يجي كتكول في المعارج إيه، معراج بمدون دفنت أوحى وحينك الله إلى تعالى مكوم إلى جمتموم نك يا محمد إيه يا محمد تم مدنا شرفك سترانك قال ينتو إيه دال دوخني يا ربي إيه يصنبر بالنسبة سما أسكن بالعبودية تجام إليك جمتيو ينتو إيه دال دوكي تنتلو نك يا ربي بالنسبة إليك بالعبودية آه، قالوا على الله إلى تعالى مكوم بورد اللي سبحانه تدنمك سلك borom bi alladi nga xam ne moo rañaanee bi abdi ci jaamam kooku suratul isra aya moo leen cheikh fa samaahu tuddee na ko allahu yàlla taala mu kawim bi hadal isra ci bi rañaan abdan mu ngi ko tuddee ak jaam fa samaahu allahu abdan boo ko taqdimee noonu baax na fa samaahu tuddee na ko moom جام مومو يلنتو صلى الله يلا عبدا متديوك جام بهذا الإسراء تبلا الإسراء تيرن يعني معنى كوزو تاح متديوك عبدا من اللي تحقق غير دغوم كي مو دغوم يلنتو صلى الله عليه وسلم بالاسم الاعظم تي إزم اعظم وما عاد ما الاسم اعظم ماني بودلو تي نيو نيو من يوم قمنا الاسم اعظم موي لان لأن فلا يصلح فلا يصلح ديوين هذا الاسم تبيل التربية الحقيقة دق إلا دل ونعلنكو صلى الله عليه وسلم الأقطاب ديوين تبيل التر تدق دق لنعل ينتبي أك أقطاب أقطاب يعني قمنا من بعد يعني تجينا من أمتي قيتم وانتي تبعا ميرم يأجي تبقو لا حقيقة وانتي دون تحقيق لا عينك تنيوم ñi nga xam ne ñooy aqtaab ci ginnaawam min ummati tabian laa xaqiqa wa yutlaq def nañ boyal ala xeyrim ci ñeneen ñu dut aqtaabi ci ginnaawam majaasan ñu mu nekk majaas doon xaqiqa ci lu dul xaqiqa mu nekk majaas rek lay doon moo tax muy wax ne wa yutlaq def nañ boyal ala xeyrim ci ñeneen ñu dut aqtaabi ci ginnaawam مجازن منك كي نتلرت وانت دون حقيقة دون آه، الوقم فيرتلا من هو في رواية أجنك لتي رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ميوعني لما غلوت بربي أوحى إلي ثلاث علوم علم أخذ علي الأعد بكتبه إذ قد علم أنه لا يطيق حمله غيري وعلم أمرني بتبليغه لخواص أمتي وهم أبدال الأنبياء وعلم أغزى علي الأعد بتبليغه للعام والخاص وعلى من القرآن فلقد عجلت جبريل في آية منه فعتبني ربي فقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فلما الشعبي آية إني آيوني وفي رواحي دكلتي رواحي nee na lammaa ba nga xamee ne xalawtu wéet naa bi rabbi sama borom yéen muy wax mi na aw xaa wax yi ne ilay jëm ci man salaasa ulum ñett xam-xam ah ñooñu suufis na nag ñoom bandaañu nañ ci ñett xam-xam yooyu di islaami imaan ihsaan moo tax ñu koy dàq mën nañ koy dàq te xadisu ah Omar ibn Xattaab wu gudd woowule yi nga xam ne fekk na yenent bi toog mu ñëw ak mbetteel dugg si ñoom laaj ko islaami iman ihsan ila akri yenent nee na ba mu wéetee sama borom wax yi na jëm ci man salaasa ulum ñett xam-xam ñu ne kaa ah, ñett xam-xam ñu mel ne lan lañ ko laaj mi a ilmul xam-xam woo xam ne axasa jàpp na ale ci man al ahdi kóllëre bi kitmaani ci nëbbu xam-xam wu njëkk wa yàlla dafa jàpp ci man ak kóllëre ne maa bu ko xamal kenn nëbbu mu mel ne dañ kaa laaj ne ko luy cause bi tax yàlla wax ni kullarante yow ne bul ko xamal kenn mi ne is ndax xada adima na moom yàlla annaw naka xam-xam woowu laa yatiq attanu ko xam la wu yenu ko xayri ku dul man man rek maay ki mën a yenu xam-xam woowu moo tax mu kullarante man ci ma nëbbu xam-xam woowule muy benn si ñett xam-xam yuñ ko waxe mi ne ñaareel xam-xam yi nag mi ne waa ilman ak xam ne amara ni digal na ma bi tabliixi ci jotale ko li xawaasin ummati jëm ci ñi nga xam ne ñooy jegleelu sama xeet wi nga ne ko ñooy ñeeñan min hum ñoom abdalal anbiya ñooy ñi remplacer prophètes yi mi ne ak xam-xami ñaareel bi di yàlla daf maa digal ma jottali ko jëm ci xawaasu jëm ci ñi nga xam ne ñooy jegleelu sama xeet te ñooy abdalal anbiya ñooñu daal digal na ma ma jottali ko jëm ci ñoom وعلم قمقم وقمنا أخز نتيل قمقم من ماي بيا قمنا أخز جابنا عليه كمان الأهل كل ربي تفليك جيجرلكو للا عمي والخاص جمتي نيب والخاص أكن ينرت آه، وعلمني قملنا مع القرآن القرآن آه، من قبل آه، قملنا مع القرآن فلقد عجلت بمي يكمت أنت بجبريل جبريل, جبريل في عيسى جاير منو تي القران فعتبني يلا دل دما يد فخال موخمني ولا تعجل بل يكمت بالقران تي القران من قبل ان يقضى نجكني دوغل اليك جم تي وحيو وحي وقل دال وخل ربي وزومبرم زدني دل ما علما أه، قم قم كون نيو تقم قم يانغوك ايغا خمني ان تبيني بامو يتي برم دال وحينا ما نيو قم من بي نينا نكو خمل جيمتي عامي اك نين ني jëm ci ñëpp ak ñenn ñi bii naa ko xamal jëm ci ñi nga xam ne ñooy jégleele sama xeet te ñooy ñooy abdala anbiya bii nag mu ne bu ma ko xamal kenn ndaate kenn attanul ko ku man eh, yonent bi sallallahu ay wa sallam man a loolu mooy islaam iman ihsan kon nag ñooñ soufisme seen wax du doon azar dafay sukkandiku ci alquran ak sun ma ne wa fi riwaaya nekk la ci beneen riwaaya woo ne لما نكون رواية مم نكون إندي من عم نبني رواية وقمني وخلول دفن فلما أدناني ربي حتى كنت كما قال تعالى غاب قوسين أو أدناه قال وسألني ربي فلم أستطع أن أجيبه فوضع يده بين كتفي بلا تكييف ولا تحديد حتى وجدت برها على فؤادي فأورزني علم الأولين والآخرين وعلمني علوم شتى فعلم أغرى علي الأعد بكتماني إذ علم أنه لا يطيق عمله أحد غيري وعلم غيرني فيه وعلمني القرآن فكان جبريل عليه السلام يذكرني به وعلم أمرني بتبليغه للعام والقاص من أمتي أخرجه من رواية أبي هريرة آه، رضي الله عنه لا يخنق في رواية جنك لتي بين رواية لين أنت دفعني فلما عدناني بني قمين جغلو نما ربي سما برم بما سما برم جغلو حتى كنت بن بما نكنت كما قال كم نمكو خينا قاب قوسين بما نك قلق ñaar xalaak ñaarek baagaanamiya aw adnaa wala mu gën a jege xalaak ñaari baagaanamiya qaal wax na moom yàlla wasaal wax na moom yeneen tëbi wasaala ni laaj na ma man rabbi sama borom yeneen tëbi eh, mooy wax ne sama borom laaj na ma falam astatia attanuma munuma an ujibahu ba réponse ba li ma laaj fa wadaa mu teg yadahu yoxoom bayna katfay sama diggante ñaari wagg bila takyifi wala tahyid a ci lu du nakk la wala ci lu du dayo bul wax mukk ne ak nakka la yàlla ay yoxoom teg ko ci wagg yenant bi ak dayowa bul wax loolu fa waddaa yadahu bayna katfay bila takyif wala tahyid yenant bi nee na ba loolu amee حتى وجدت بمي أمنت بردها سداي يخبي على فؤادي سبقل فأورثني مدن لوما علم الأولين والآخرين قم قم ينكني ولا أقران يمجي بما أمي أك يكو لول سمقل سداي يغم زم قرد مدن لما قم قم أولين والآخرين وعلمني مقام وعلوما قم قم يقم شتى يتقلكو فعلم قم قم وقم أخذ جبنا عليك من ألا أحد كل ربكت ماني نبوكو أمنا قم قم وقم يلا دفا جب من كل رانتي نما ناكو نبو إذن علي مقامنا أنه مم اللي قم نمومي لأنه نكم قم قمو لا يطيق دفعت حمل وينوك أحد كان غيري كل من وعلم قم قم وقم غير ني تعدلو نمو في قم قم ني سمنيخي ما قم لك وعلمني xamloo na ma alquran alquran xamal na ma alquran fa kaane nekkoon jibril jibril ali yéen a nekk ci moom asalaam jàmm yu zakkiru ne di ma ko fàttalil bii ci alquran wa ilmun ak xam-xam woo xam ne amara ne digal na ma bi tabliqi yi ci jotal ko li la am jëm ci mboolam seen wal xaas ak ñenn ñi min ummati sama xeet arajo génnee na xadis ba mi riwaatin ci solo abi hurayra nee na intaha jeex na lam doon nettale ci hadis yooyu maanaam cheikh mooy wax mi ne qultu wax na eh, qaala wax na allah jalla taala mu koy muy nag bandaa ñu di tuural ay ay yoo xam ne foo mu dëgëralee ko li nga xam ne mooy fi anna ulumi azwaqi al mustanadu eh, bil kitaabi wa sunna wam la waxoon ci njëlbeenu sa pétér bi نينا برمي سبحانه وتعالى ميوخني فأينما تولو فثم وجه الله كوكو سورة البقرة آية ساكيز بورنا فأينما تول تولو فين من تجبل رد فثم فوف وجه الله آه وجه الله بي ميفوف لي قمنا الله سبحانه وتعالى دفع وجهه آه وجهه مفين من تجبل رد ميفوف لي فأينما تولو فين من تجبل فثم فوف وجه الله جميع الجفال نك kon da nga xam ne ñoom lu ñu wax foofu mu am cëslaay kooku suratul baqara ay cent cinq buur wax naan qaala wax naan allaahi la taalamu koy fa ma tuulu fu ngeen mën ta jublu fa sama foofu wajhullahi e, kanamuk kanamu gaa ngi fa jëmm yàlla ji moo ngi foofu le suratul baqara ay cent quinze nee na waqaal wax na taalamu koy mi buur a ngi wax ci feneen muy suratul isra ay quatre-vingt-un muy quatre vingt بريو يعني وقل جاء الحق وزعق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل واحد جاء دكنا الحق الدق إيه، الحق يلا وزعقت الدماء الباطل النين إن الباطل النين كان مستدين زوقا دماء كون آه كنت بايل ذلك بأن الأول أقل أي وجر ظاهر أمن باطن وقل وهل يا محمد جاء دكنا الحق يلا وزعقت الدماء الباطل النين innal baatila naka neen kaana mësta dëñ zawqaati dem ak ko ndaxte neen mësta dëñ ah, di fi eh, jóge ko kooku suratul isra aye 81 mi ne waqaala wax ne taalaw ka moo leen cheikh mu ngi tuur net di indi ay ayat eh, yoo xam ne ay mbir yi ci nekk eh, ci ay secret kooku jaas ñu mën a tudde lépp wante mbóot yi ci nekk jaas ñu mën koy siiwal mi na waa wax na taalamu koy bal bàyyi sa naqasifu dinañu sànni bil xaq ci xaqu alal baatale ci baatal dinañ jël al xaqu muy dëgg muy yell sànni ko ci neen fa yadmaqahu mu mu noyloo mu noyal ko mu moñe ko mu yàq ko fa iza huwa fekk dem ak kon la moom al baatil woowule buur na bal bàyyi naqasifu danañu sànni bil ci dëgg bil ci yell alal baatale ci neen fa yadmaqahu ko doyul ko fa isaahu fekk moo saayu xaaju dem ak kon ko kasrat anbiya aya 18 nee na waqaal wa taala mu kam yàlla ngi wax ci suratul xaafir aya 12 zalikum loolu le bi annaw naka moom nañ ko allah yàlla waxdaw moom dong bu fekkee nañu yàlla dong moo fi nekk kafartum ngeen weddi way sharak ndéem bokkaale nañ bii ci moom ngeen gëm bu ñu bokkaale yàlla ak leneen ngeen dal di gëm mën a kawtef day na war bu ñu yàlla dong nga fi nekk kenn nekk fi ku dul moom ah ngeen dal di weddi wante bu ñu bokkaalee yàlla ak leneen ngeen dal di gëm maa xam nga lii nag mooy doyog réer mu ne zaalikum loolu le bi annahu nag moom isa addu ndem wooyee fi nga allah yàlla wax da moom dong kafartum ngeen weddi wa in shirk ndem bokkaale nañ bii ci yàlla ne tu'minu ngeen gëm suratul xaafir aya douze من وقال وانا تعالى مكين هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ومو الله ومو الله الاول ما يجك ومو إرادة الاول ما يكنجك نعت يلا دون دا في نجك لانت كن موتا نيو الشريعة ني مانا بوكا لين نعت ومو الاول ما يكنجك موم يلا لول نيو وخ خمال لول ما يديك اك الشرك boo ne yàlla moo fi njakk ana kum fi njëkkalanteeg ba ngay wax yalla yàlla moo fi njakk bay njëkkalante te boo ne yàlla moo fi njëkk rek eh, am na ku muy njëkkalante am na barab bu muy njëkkalante muy ñett mbir te loolu shirk la woo moom allahu al mooy ki njëkk woo moom eh, irada al mooy ki njëkk eh, mooy lu njëkk du moo ko njëkk mooy lu njëkk wala axiru mooy axir wa zahir mooy li feeñ wal baatinu mooy lu nëbb te woo moom mu iraada woowu bi kulli seen ci lépp la fa alimun aji xam la ko kooku suratul xadiid ay trois لأنه وقال الله تعالى مكم يلا نجي وخني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق لهم أنه الحق وكسورة الفصلت آية سنكانت الترى بونا سنريهم قلسنا لنا وان يوم جاي ayatuna sunu kaw TV moo leen ci yoon buy firi aya day wax naan mooy al anbiya wal awliya dina leen wan prophète yeeg waliyu yi fi la afaaq ci gox yi wa fi anfusu ak si seen bopp xataa itam ba mu bir leen lawum ñeel leen annawu nag mbir woowule di suñ kawtéef alxaqu mu réyal كوكسورة فصلة أي سنكان تترو وقالوا أنا تعلم كيم الرحمن الرحمن إسلوحي من على عرشي شي عرسا من أي وقمني نيونيو الشريعة ينجي وقلو نكي يلا نجي توك تقوم أنا ينجي توك مثالي كم سما توك أي وي تقوم أنا ونون لفايا لتوك من أكو تيب كم بيو عرش وانتبو دمي شي شاق تجان ميقمني دوسين مرمتي ñàkk xam ay waxam rek moo tax ñu koy sànni ay ak kalimatul kufr wante doomi aadama lépp lu mu réere dina ko noone kullu ma jahila al insaan foo waadu lépp lu mu réere moom doomi aadama rek dana mu noona loolu le wante Cheikh Tidiane mi xam maamam daana wax ne allahuma salli wa sallim ala ayn alxaq allati tatajalla minha al urushu aqaiq kooku xam na dayeg maamam mi nga xam ne mooy uruusul aqaayiq mooy eh, arasug aqaayiq yi ndaxte xaqiq wu nekk dafa nekk arsh kon nag yàlla dafa jëfandikoo turam wu ñu waa arrahman moom arrahman mu ngi yemoo ci arasam maanaam uluhiya mu ngi yemoo ci arasug nubuwa نبوة مغيه موجة عرسك ولاية ولاية مغيه موجة عرسك قلافة موعن قلافة آه، فن لاية مونت كوكو يندون جيب باينا لنكو يني جانغ درسوي موتمينا بورني الرحمن يلا دي يجي يمول على عرش شعر سمسا كوكو سورة الطاها آية السنك نينا وقال وقنا تعلم كويم قل وقال يوم محمد نحن يوم نيوخنان آه، يلا أمنا الدوم وقال يوم محمد وقالني إن كان نم نكن للرحمن يلا ولد دوم فأنا من أول العابدين ماي كن يكتي جام يلي وطبعا ما نشام مقامنا أول عابدين أول أول المعبود te daana wax feneen sa nuuruhu awwalul wujudi wujuda ndaxte yàlla njëkkalante wu fi kenn wante qul waxal daal in kaana nim nekk li raxmaan ñeel yàlla wala din ak doom fa ana man أول ما هي برمية عبدين كي جامامي كوكو سورة الزخرف أي 81 من وقال وانا تعالى مكيمي من يطيع رسول فقد أطاع الله من يطيع كيب كتبنا رسول رسول وي موي انتوي فقد أطاع تبنا الله يل وانت بايل قنات si nga buñ lay digalee a ah toppal diw day fekk ki ngay topp nga mën koy gis waaye di topp koo gisut xam nga loolu day waar boo rëbu ne atiu allah wa atiu rasul eh, toppal yàlla ana yàlla mi ngay topp kon nag moo tax ñooñu oh, ñu jéem a orienté wu am sëriñ bi xam nga ne innama waliyukumullah eh, xam nga ne ki ngay topp daal mooy wilaayatu wi képp ku topp na yonent wi di nubuwa topp na wilayaam moo tax buur ne man yitte ak képp ku topp na rasul yonent wi faqad ata topp na allah yéen kooku surat nisa ay quatre-vingts برمنا وقال وانا تعلمكم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم كوكو سوره الفتح ايه 10 gis nga ay winat euh, foo nga dellu ci balaax man koy jox dayoo firi inna lazina wéet na wéet na ne ñaaña nga xam ne yu bàyyi ona ko ñooy jaayante ak yow innama wéet na ma ne yu bàyyi ona jaayante wuñ allah lu dul yàlla firi yi nga xam ne foo nga firi ko noonu ndaxte ulama balaax yi ñoo mën xam dayoog firi woowu moo tax inna lazina wéet na na ñaa ñi nga xam ne yu bàyyi na ko ñooy jaayante yow yenent wi wéet na wéet na ne maanaam wéer na ne ñi nga xam ne ñooy jaayanteeg yow eh, wéet na ne jaayante wuñ na nag kuréet yàlla yàlla rek lañ jaayante te yàlla ñoo jaayante waaye wéet na ne yàlla rek lañ jaayante mu mel ne ñu sikki sàkk ne ah ñun yeneen teew lañu jaayante bi naa yeddullahi yoxo yàlla foo ko ay muy seen kaw ah ba ñuy sikkil la rek mu mel ne daf leen bëgg a confirmer ñi jaayanteeg yow jaayante wuñ ko dug yàlla ndaxte yadullah fawqa aydi kooku suratul fati maanaam ana kon nag naka ñu déggee loolu moo tax ñi am tawfiq ci ñuñ soufisme ah gis nga nag nii la ñu tuuroo ci ay yooyu moo tax loo xamul daal waxal na xaw ma rek walte nangam amut nangam nangam la loolu day war la من وقالوا أن تعلم كيم كسرة الفتح لا يدس وقالوا أن تعلم كيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كسرة الأنفال لا يدست كوكو غزوة البدر ينتبع عليه الصلاة والسلام يقمني يلا دفنكو ينمو لنا نك يرمان جل مدف كوكو كن يرمان رت لوردون وانت بودي من بي تبع كسوف سني ترخل أي نونم ريلين gumbal leen xamal ne loolu wute naag ak yërmande buur ne ko wamaa ramayta sànni woo is ramayta ba nga sànni yàlla saxal na ko ak sànni nag sànni woo ba nga sànni mu mel ni nag dañ kaa génnee na ci yi xam nga yonent bi salaa du wax ne man maay nangam ak wala man nangam la yàlla moo koy wax ne que yow yaay yaay yaay nangam mu ne ko walaakin wante allah yàlla rama mooy ki sànni yow yonent bi daal dàq sa responsabilité e, sànni woo ba nga sànni e, ñu ne ko ak sànni mu ne walaakin allah rama yàlla mooy ki sànni waqaala wax ne taala mu kawe mi nii kooku suratu ali imran aya 31 qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum نينا قل وعلي يوم محمد إن كنتم نيم نك نين جامي لي تحبون الله دي بغي يلا فاتبعوا لي مو عني لي ننتلم جدون بغين بغي يلا بغين توبلين يلا رد لول مالا نكي وخرج وانت بغين بغي بغين نكي دي بغي يلا توبلين من محمد يحببكم الله يلا دينا مو بغي على اللي ينتلم جدون وتغبور من كي حصرت علي عمران قل وحل يا محمد إن كنتم نمنك جيل تحبون الله دبق يل فاتبعوني توبلين ممن محمد يحببكم دنا مبقلين مم يل ولم سورة المحمد أي د بورين يعني وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم بني وآمنوا موي قمني بني وآمنوا إيه موي قملين بما جلان قمني nuzila wàccee nañ ko mu muhammad ci muhammad te la ñu wàccee ci muhammad woo moo alxaqu moo de yàlla mi rabbihim tukkee ko seen borom waay waay gëm leen li ñu wàccee ci muhammad te la ñu wàccee ci muhammad moo de xaqu mi nga xam ne mi rabbihim soo déggee na te ñooñu sufisme di firi nangam nga naa ah, déggal lu ñu firi ma ne ay wu nekk am na bu amee zahir am na baati الى اخر برينة النبي عليه الصلاه والسلام وحنا له لكل عيد له حد الى اخر من وقف عبدنا بالله جل شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح اي 28 جابو 29 buur ne محمد محمد muhammad mi رسول الله ne rasulullah يلبي صلى الله عليه وسلم kooku Kawar day na billaahi shahidan mu nekk ak témoignage am mu nekk ak séedéem waaw tamit wa Kawar day na billaahi shahidan ak séedé Mouhamad ne Mouhamad rasulullah ndaw ak yàlla kooku suratul Fatiha ay vingt neuf vingt vingt huit vingt neuf boo da nga wax ci suratul Nisa ay soixante neuf boo da nga ne wax mi yuti Allah wa rasulah فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحزن أولئك الرفقاء بنوعن كيف قعن يطيع تبنا الله يلا ورسول لا ينتبه كيف كو تبو ولاية ما أكن نبو عمي فولاية كن ينجل قاعد ينجل تبو مع الذين ما ينجل ينجل قمن أنا عم قولنا لأن الله يلا علي سنيوم ينجل يلا قول ينجل من النبيين تنبو وصدقين أك تولاية وشهد أك خلاف والصالحين أك دائرة القطبارية آه، ينجل ينجل يلا قول كيف كو تبنا يلا topp wilaayam ma ak nubuwaam wi na xam ne ñooñu ñu topp daal mooy ñi yàlla wërsëgal te ñooñu ñooy wa ak wilaaya xilaafa ak dairatul qutbaaniya ma ne boo déggul wax ji nag waxal abdu wadud waxoon kalaam al awliyaa lastu afhamu li annani ana ana wa hum humu bu wóor ne donte firi nga ko saahiran ñooñu lu tasawuf ñoom duñu wéte wuute ante yow ndaxte ay woo indi ak noo ko mën te indee dineen xam place ak doye wañ koy jox wa man yitte ak képp ku topp na allah yàlla wa rasul ak yeneen toom foo laay ki jënjël gaay ma allazina ñi nga ànd ak ñaa ñi nga xam ne anaama xéwal na allah yàlla alim kaw seen min annabiyin ñu tukkee ko ci e, e, yeneen tii wa siddiqina ak way dëggal ak koon wa shahada ak way saxiidi te shahada booy bu shahada te kenn jënawut ak yéefi lu alxilaafa والصالحين أكيد قمني الصالحين وعصنا رفعنا أولئك يلقاي رفيقا لستة لأن النار لأنه وقال وانا تعالى مكومني كوكو سورة الزمر آية 33 والذي آه، كي قم نجا اننا بالصدق تدق وصدق تدق البيتم اولئك هم يوم المتقون ني رجل من كي قم مو اندي اك دق تدق دق جي ñooy ñi daal ñooy ñi ragal yàlla nee na waqaala wax na taala mu koy mi ne wa ka ay bari na min ayati ci kaw téef fi samawaati boole aji nekk ci asamaan wala ardi ak suuf yamaruuna ñu ngi rombaaliyaa ci kaw téef woowu wule te woowu ñoom mu aridoon way dëddu lañu ana ci kaw téef woowu ay kaw téef kooku wa ma adraka mal ay wa ma adraka ma samawaati wal ard yamaruuna alayha وهم عنها معرضون وقصرة يوسف أي أساسي بورا يوحنا وقال الله تعالى وكوبي سورة الزاريات أي أفلت وفي أنفسكم أفلا تبصرون كوكنا كيت بولانا يعني تقديم أفلا تبصرون مو تاع دغيت قول في انفسكم سين بوب واي واي قول سين بوب بغي قول سين بوب دغيت غيس سين سرور روح جسم قلب اك سين ناسودي ak seen nafsu mina ak kondat wa fi anfusikum wa afala tubsirun waaye afala moo ndax du ngeen xool afala tubsirun moo ndax du ngeen xool fi anfusikum seen jëmm yi kooku suratu Zariyat ay vingt un kam gën dina la ay aye muy lay bandaañul ci li nga xam ne mooy ahadis yi nam tubi mi ne waqaal wax na sallallahu alayhi wa sallam fii maa ci la xam ne yar wii solo na ko an rabbi jëlee ci boromam بروني أعرق دكا لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فتعرفت لهم فبي أعرفوني دلينا عم نجي ردوني دعوة أك حديث ورد wante ma ne ñoom ñoo wérut ndaxte boo wérut man da ngay bëri looy ragal wante boo demee ci ajlooni rotal na ko ci kashful xafa ci volume 2 page 191 دي عجلوني مجينا تريني القاري وعنينا معناوي صحيح مصطفى من قوله تعالى نكو ببو جليكو تي وما خلقت الجن وليس إلا ليعبد كو قصرة آه، الزارية تعي سنكات آه، السيس معناه إلا ليعبدون أي ليعرفوني كما فصل ابن عباس رضي الله عنهما تي siw لم يكن كذا معفيا فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فبي أعرفوني إيه دعاء إسلام السلام الصلاة جل كبر برمان دي وعني كنت نكنا عن كنزا دي أكنز مرة آه، شريعة الليلة جل هي لنكنا عن كبير آه، نمو من عدي من شادي كنت كنزا أي الذات يعني الساذج التي هي عين عين الطمس والعباء والوجود المطلق تتجلى بجميع المراتب في حضرة سي آه، سر سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وعند حتى مشري صاغ بودمتشي القنابل اليدوية نحن أن الذات أي لا نسبة فيه وتقول الشاطئ واحد يتجلى له ذات العليا شاذجا إيه، وعيد عباء والطبس معدي ومتحفة ba tax yonent bi ne solo naa jëlee sama borom mu ne kuntu nekk naa kët sa di jëmm woo xam ne la ma araf xame wuñ ma fa ahbabtu ma bëgg nag an arafa bañ xam ma fa xalaatu ma bind ak xalxat am bindee fa taaraftu ma def taaruf nag law ci ñoom fa bii ci moom arafu ni lañ may xame wala cheikh mu ngi indi weneen xadis woo xam ne yéen tëwoon mooy wax jëlee ko ci borom borom di wax ne fa isa ahbabtu bu ma buggee jàmm bi rek ah kuntu ma nekk ko kon mu ana jàmm bi lu mu doon nee na waqaal wax na sallallahu alayhi wa sallam kaana nekk na allahu yàlla wala kaana mustadin allahu yàlla di nekk yàlla te wala chey di dara maawu di ànd moom ba muy waxee loolu rek baabul medinatil ilmi te yéen tumoon ana medinatil ilmi wa ali baabuha dal di wax ne wal aanu ala ma ali kaan وقالوا عن علي علي ومو الآن بليجي كان مستدين دفنك على ما عليه كلام نكي وانتي ولا شيء ما تدرن نكتب وقالوا عن مبين صلاة أصدق كلمة قال الشاعر كلمة اللبيد يعني أصدق الكلمة قلت شعر دقو وقد قال وحدكو الشاعر ويكت كلمة لبيد موي وخو لبيد وحنا يعني على كل شيء ما خل الله باطل بناء وخ جلال آه، بن وخ غنو كوي دغو تي وخو وي كدي على ووي على دمدي كل شيء لبلا ما خل الله لري الله باطل ليل بلا وقال وانا عيد متي في ما جلا قم يروي صلدكو ما لا شيخ بيدتلي بلا عيد تصلا وانا تبي جلوب جلي تي بروت وعد لم تسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي مؤمن كوكب ولمجي إمام الغزالي قلنا كنت إحياء علوم الدين بوري لم تسعني قجما عريس بصوف ولا سماعي دساق السماع سمان وأنت ووسعني قد نما قلب عبدي قلب عبدي قلق جام سماء المؤمن بلا جيب مو ما تلقى إشارة أرضي ولا سمائي wasi ata qalbu abdi mu'min burni qajuma ci sama ak wilaya qajuma ci ak nubuwa wante qanya ci khilafa kono lam tasawani ya tuuma ardi sama su wala samai de sagge sama asbat maana lam tasawani qajuma rat ardi sama su wala samai de sagge sama asbat wante wala wasani qanya ma yatu naba qalbu abdi qoluk jaam sama al mu'min badaj gam مولان الشيخ دي اي مالا ادل يبارينا كذلك احاديثي من وعزي الايات يلا اي والاحاديث اك احاديث في عندك رج امور اي بر يا قبل الله تذكر ديفنكو تدو واسرار اي اي مور يا قبل الله تشا ديفنكو تشاري بو اندي وخ الشعر بو وخ نادن ستكفيك من ذاك الجمال الاشاره ودعه مصودا بالجلال محجبا من ستكفيك قلسنا العديرة إشارة أجنج من ذاك الجمال تيوو الجمال جمال من بين الأجال نال دايرة اللي ولا سجنجل بمتمنى بأني لتي أسلفنا بغيقز لتي بير ودعه ننكباي مصودا ميرو معجي نيون بالجلال تجلال تمكاي محجبا ميرو معجي نككيرا من آخر كنا المقوعنا ومستغبر عن سر ليلى ردته بعمياء عن ليلى بغير يقين كيف بنا على ليلى وأنت معنا عن ليلى بغير يقين يقولون غبرنا فأنت أمينها وبعد إن غبرتهم بأميني من هو مستعبر برينا كوي سكو عن سر ليلى تي موت ليلى وما أدراك ما ليلى وسره وتمنى ndax dama la ndonge bi nga xam ne mooy jël kurusam di jéem a euh, di jéem a doxe ak euh, surroog ak nangam nangam mu ne ko atatlubu layla waye fii ka tajallati wa taxsubuha xayran wa xayruka laysati yaa kon na ñoom xam nañ koy layla nee na mustaxbiru bëri na kuy sàkku an sirri layla ci sirrug layla muy mbootug layla ana kan kon nag man a ana kuy lay laa ak mbootam wa mi na raddatuhu ma delloo ko ne ko ah dama la ko xamal de bi am yaa ci ci lëndam عن ليلى ولز ليلى بغير يقين تلود أكل كولتي يقولون نيجي وحنا نخبرنا informé xamal ñu fa ante yow aminu ay yaay ki xam li nga xam ne mooy information yi wa maana den man bi aminin may ku wóolu in xabartum bu ma leen informé bu ma leen xibaaree mi la àqar keneen a ngi wax naan wa iza lam tara al hilaalu fa sallim maanaam lii mooy màndu nat li unaasi ra'awhu bil absaari wa iza lam tara boo gis al hilaalu tërite gu weer wi al hilaalu mooy tërite wante al qamaru mooy weer mu ne wax ne al hilaalu weer wi boo gis boo gis tërite weer wi fa waay waaye fa sallim bul wax mukk ne weer wi feeñu kenn gisu ko ah fa sallim jébbalal li unaasi jëm ci ay nit yoo xam ne ra'awu gis nañ tërite weer wi bil absaari seen i gët wala Cheikh ne woykat bi daal mi ngi wax ne bu fekkee ne gisoo terete weer wi jébbal ko jëm ci nit ñi nga xam ne ñooy ñi gis euh, terete weer wi mi ne waxasaal yi axiru mooy mujjanteeg maa loo xam ne arat na nammu naa ko bëgg naa ko jamoo dajale ko fi asal fasal ci wi la chapitre di chapitre ñaareel wa nekk juróomeeri chapitre ci chapitre tiro wallahi jalla al muwaffiqu mooy aji dëppale la sawaab jëm ci yool mooy lay jëm na ci moom subhanahu wa taala masalan al marji delluwaayu wal maab ak delluwaay bi ci yàlla la jëm kon nag lii mooy li ma bëggoon a dajale ko ci chapitre wii la wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin ما يديك توب دفع جوك دفع لينكو الحمد أول دعوانا وآخرها والحمد لله من حين إلى حين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته